xool ko mu mel ni ku nekk ci guddi gu bët setagul woote naa ci consulat yi nekk Europe yëpp ñu ne ma baara fenn tàkkul ñépp ngi liggéey en paix dara yëngatuwul ma woote ci consulat yi nekk Amérique ñu ne ma fenn tàkkul ñépp ngi liggéey en paix Sénégal kay laa xamul mu ngi tàkk wala déet sama maam daan na ma wax naan ma baara booy lekk ci ndab ba mu leer ne sa loxo dañ ko bëgg a wiccax nee na ci ngor bul xaar kenn ku wicc sa loxo nee na sa loxo wiccal ko sa bopp Barth yow waroo woon a xaar lii yow yaa waroon a dem te xam ne politiquement tu es mort yi woon nañ la ginnaaw yàgg nga dégg ñu ne Sonko ku ko songu sànku <laughs> lenn nag laa lay conseiller bu yàlla defee lii ñuy waaj doon dëkk demal Dubaay jënd ay diw ñëw taal live xool benn jaaykatu diw bu pankilifa nga saaga ko ndey ngeen toog ci internet bi di saagawante wala nga dem Maroc